y no caí salaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñi suivre sur Kewel du nuyu kilifa diine kilifa yëpp du nuyu sama sëriñ notre responsable moral bu daatu Moustarchidine ba Moustarchidaty du nuyu kilifa diine yëpp di ñaan réew mi yàlla fi yàlla def jàmm di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla tabaski bi ñu jógee yàlla yàlla barke lépp ca barke yorenti bi ah. euh, tey nag ba tey ñu fi si yëmbal mais dañoo amaat beneen facette tey nag ki nga xam te moom mooy Ama Dia dañ koo fekk nag ci fi nga xam te ne fa lay liggéeyee muy mécanique di mécanique ngay def muy muy réparer ay oto en soudeur ah, ah, soudeur lay def tey nag ci place am mécanicien laay def nga ne mécanicien laa waaw mën na mécanique ba pare nga soudeur waaw <laughs> waa ñu fekk ko nag ah, tey ci place am wax dëgg yàlla nekk te moom am na métier de tarkalla ñu fekk ci place am sa waay ànd ak ay mafia mafiyaayam waa yow kii am na bës de xula xale yi ñëpp di ñëw dañ koy bàyyi nag mu nuyoo ñu dugg si waxtaan bi ndax gis nañ ko tabaski na si jàmm wax dëgg yàlla ah, di ñaan yàlla rek ah, di ko di ko baaluwaat àq bu baax a baax xam naa nag amee ma ko àq moom amal àq rek yow waaw ginnaaw ñu sant yàlla ju si ñaari waaj di sant ñëpp yow noobu ma la de yow yaa nopp waaw maa ngi sant ñëpp di sant gaay yëpp ñii waa ASACS waaw ñii samay nit lañ waaw dañoo yàgg fii laay liggéey difi def lépp fii laa defee lépp man fii laa dëkk sama koñ dëkku ma fa yoo xam nga waaw di nuyu waa pneu bi waa ASACS mooy ñiy toog ni aw ma seen fay waaw sama équipe bi maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal yëpp jàmm waaw képp ku feebar yàlla na nga wér waaw ñun yéenewuñ kenn lu bon waaw. feebar yow da ngaa feebar. waaw mais waaw yàlla yàlla bëri na sutura man lan moo ma dal. waaw sama tànk rek mooy métti de du feebar. jéggi. jéggi wu ma dara damaa def sok waaw. waaw. d'accord mais mu tane. Ah, d'accord Ama Dia 2 euh, gannaaw nag ba nga jógee ci tabaski bi tabaski bi nag El Hadj woo na ma ñoom Baye Ndiass ñoom ñëpp woo nañu am na lu ñu wax ci tabaski bi mais sa tabaski naka naka nga ko paasee. nu ma ko paasee si lan si tabaski bi laa. waaw nan laa ko paasee kay da ngay wax ni ko paasee comme nan. lekk nga jënd nga xar. waaw jënd naa xar. waaw naa ko lekk nañ ko. jënd naa xar ñu ray ko lekk ko. waaw kañ nga jënd xar. moo xool biñ ne ginnaaw suba la xaw biñ ne bu mu trois jours waaw. gars de dégg naa orange wane nañ. bu yof nañ. waaw jox nañ ma. yow loolu yow lijjanti sa bopp rek liñ ma jox ak ma joxul yow sa yoon neeku si. xar bu ñaata jënd. bul ko lijjanti. soo demee fi ma ko jëndee. ñoom ko wax. 65000 waa mën na nekk nit ku ne li nga am ngay duggee. waaw ñun lu ñu am rek loolu la ñuy jënd bu bu ma amoon njëgu bëy sax wala ginaar moom laa jënd. jeex na. deux jours lañ ko lekk xam nga suñu wax ak moom dañuy consommé waaw <laughs> deux lañ ko lekk lekk rek la ñuy def sama raw ñëpp moom. <laughs> waaw ko boo tegoon mbana mu lekk. sa yaay. tegoon mbana laalaaw mu lekk. waaw. ñu euh, xar bi yow da nga koo boo da nga boole wextaan bi ak yàpp euh, euh, nga jël ak yàpp bi moom nga boole lakk ko lan moo tax nga def loolu. xaw xaw ma ko woon. xaw waaw weex na garab la de. garab la day faj. mais seen seen waaw loolu ñoom seen problème la lu ñuy xule ba ma yàqu. Ah. waaw mais waxtaan def lan sa yoon nekkul ko tey si xaar bi laa ànd. Ah. booy waaw dañ ko doon génnee mu toj loolu mënu ma si dara. Ah. waaw yàlla Sénégal ñëpp am jaam. waaw bi nga passé ak bee passé am na différence. si lan. bu bi ak bu différence mooy la tabaski kay tabaski la rek. amul différence. waaw di ñaanal booy ñaa ndam booy ñaa. booy ñaa bi dëkk ñaax. mooy mbëru fii mu ngi nee taxaw sama waay la booy ñaa yàlla na ko yàlla may ndam waaw. kon lekk nga ba ma de. ku lekk kay di nga suur tabaski mën nga lekk te doo suur. mais yow ay la yàqal. non man ñi ma yàqal sax lekk moom sama yàq man man lekk naa daal. yow bu ma sonal nag ah ah laaj ah. man yow ñi la lakkal eh, yëpp yëpp lekk nga. déggoo li ma la yow yow yi ngay laaj ñi amu sens ay li la lakkalak yow yow yow lijjanti sa leer. baa ko foofu rek yow da ngaa da ngaa sonne quoi lijjanti sa bopp. waaw léegi fan yi ñaata émission nga def. est-ce que matul cent est-ce que laa. est-ce que matul cent rek man sama yoon nekku si ah. waaw. damay tourner rek. waaw li Sénégalais yi bëgg rek loolu laa bëgg. man dañ may woo sax naa ma kañ ngay defaat interview. waaw man leen léegi rek man nit ñi laa fi nekkal samay waay lañ. dama dama xayma rek wax la xawma sa ñaata la mais dama ne la isa matul cent ba ma ko dalee def ba léegi waaw ñun mooy loolu yaaguñu si laam mais am na lu ñu yàlla defal waaw li wax gars yëpp change na hectares yi écouteurs yi changé naa ko. waaw moom laa bëggoon ñëw andi écouteurs yi. écouteurs ñoo tax ma gaare am naa yéen am naa. <laughs> léegi am nga yeneen. non am naa yi. waa Ajax ñoo ma ko jox. waa Ajax. waa Ajax mooy ñii toog. waa la. yow nga xam nga rek. Eh, waaw ñoo ma ko jox nee nañ gars ñoo ma sonal waaw. Ah. waaw léegi maa ngi yi. waaw mais fan yi am na benn prank bu ñu la defoon prank bari coow prank boobu nan la dikkee. c'est lan c'est lan. nan lañ la iree. Ama Balde la. moom moom moom mooma mooma def loolu. waaw sama waay la ma koy ñaanal ndam. waaw moom waruma def loolu sama waay la moom moo woo gaay gaay mooma tayle. waaw. waaw. gaa yi tibb sama tànk man leen bu ko tibb waaw daa wóor. boobu boobu réellement nag xamoo la. ma noroon raag ak ñoom mais après mooy loolu gaa yi jàppale sa waay du neex a dóor nag. waaw bu lay prank day daw rek soo koy du taxaw. waaw am na leen lu ñu yóbbaale lan la ñu yóbbu. amul lañ fi yóbbu. yaay génn gaam nag dara demul xool naa ko. Oh, xool naa ko waaw. alors laa yaakaar daa wóorul kat yow nga def soq këy suba ñu lay tibb sa tànk ak lu na xaj na si. waaw bu demee damay per. waaw léegi beneen bi mooy mu am benn nouvelle bu neex boo xam te ne Ama Dia léegi comme que am nga combat yàgg nëpp ñu gis nag sa combat boobu moom changement dina am ndax regroupement di ko am. ndax gis nañ ñoo xam te ne am na ñoo xam te ne moom léegi say fans dinañ lekk dinañ naan ba suur léegi nouvelle boobu ba ko gars yi waxee lan lan la la def. nouvelle ban. le fait que léegi say say say fans bala ñoo dem stade dinañ lekk di nga togg regroupement. waaw man maa la wax damay toog. eh ba tey doo maa jox mais ñi la wax dañ lay jox xaalis bu ñu la ko joxee nag. joxaguñ ma baal buñ jox ma yow fii maa ngi koy lancé ñëpp waaw ku bëgg a añ da ngay indi 1000 francs waaw waaw gars yi dañuy joxe taw bu samedi waaw bu ñu xëyee dimanche mën a togg mais kuy taw moom do lépp na la toggal nag xanaa di nga togg nag loolu ku may may rek may may te yàlla tax mais mayoo ma pour ma togg far force ah booy mayee rek yow mayal rek waaye ay mbër bi dina togg ak du togg loolu bul lijjanti loolu avant di ko wax mu préparé waaw li ma waxoon waaw ñoom ñëpp waxoon nañ ma bu may kii dinañ ma jox ma toog. waaw léegi bu ñu la joxee nag. lu ne xaj na si daal. en tout cas kuy añ si na indi taw. Hmm. waaw léegi waa koñ bi bu fekkee waa koñ bi dañ na la da ngay force maire yi ñëw na la da ngay togg force force léegi nooy réagir. yow bul tax mu wax la li ma waxoon. Ah. waa koñ bi ñëpp kenn moomu man maa moom sama bopp. waa koñ bi moomuñu la te di waa sa dëkkandoo ni mu fooree. dëkkandoo mooy la. dëkkandoo mooy la. waa yow da ngay togg ñu ndugg indi ko. waa koñ bi laala ba may bëree fan lañ nekkoon. sama koñ fan lañ nekkoon mos naa bëre ba nit ñëw jox ma cent franc. Hmm. yow ku ma moom. yow man maa moom sama bopp de man wéeru ma si kenn man sama bopp laa lijjanti man ñi dëkkal sax moomuñu ma <laughs> waaye yow doo ma hmm. man kenn moomu maa moom sama. sama yaa mu génnee xaalisam toogu. bu ma yorul moom yoruma sama yaay mënu maa toogaloo. déedéet yoroo yow bëggoo togg ay regroupement lan moo tax il wax askan wi ak ñi dee seetaan lan moo tax yow togg regroupement soxla woo ko wala ba nga dalee togg daawoo am dam ba nga commencé ñàkk togg si nga commencé am ndam. leeralal gars yi. maanaam togg bi ngay togg supporters yi di ko lekk di ñibbi looloo ma naqari. Ah, waaw moo tax bëgguma togg. waaw man du ma liggéey si yàlla na di. waaw ñoom bu ñëwee añ nañ dem stade. dagg ticket dem esat waaye añ rek ñibbi hmm. waaw lool waaw man ñoom duñ ma debal man ma leen joo hmm. waaw mais loolu tamit man su may wax nit ñi dañ koy réeku waa te man li may wax ñoom xam nañ ni dëgg la. ah yow da dem dem ñibbi. te duñ demee sax waaw léegi nag moo tax bu laamu jotee lee dama leen fa bàyyi dem. bañ a toog nekk si lu ma nekk. bëgg a dem instant nga dagg jaar noonu. waaw man waa fii rek laa am waa Comico ñaax fii. d'accord ngay lekk damaa gis mbër yoo xam te bu ñu amee combat dañuy togg dañuy lekk burger ñi lekk banana ñi defar lu laax mais boo amee combat may lekk yow yow lu. su ma amee combat ma daan lekk laay lekk. daan lekk waaw bu ma sonal. man caa kii cerek soow rek laay lekk. cerek wala cerek meew. waaw sama yaay day togg cere rek teg foofu man damay ñëw rek ti bu Hmm? bu ma amee combat ma ñàkk am komba lu may lekk laay lekk yow bu ma sonal nag. ah feeñu si yow. cere jan. Ah, bi ngay lekk cere meew. sa waay yow loolu sa yoon nekku si. ah, ah cere meew nit ñi bu koy lekkee da am doole mais yow xoolal rek li nga toll. si la ma la xamee tey di nga yow yow yow bu ma la xamee ba léegi da ngaa gàtt. ba nii njooloo kañ nga njool ah, yow yow maa sut fuuf toog nañ ñii sax sut. mais <laughs> ndaw saa waay. sa corporation lool man la concerné. dee ma jox lu may lekk. dee ma jox lu may lekk. Ah, sama jabar jox kon léegi bul ma laaj loolu. baal sama jabar laaj ma ko. waaw yow li jëndi sa bopp rek yow laaj ma li may laaj la ma tontu la. d'accord léegi nga am yaa nëpp xam nga nëpp. naa ko. waaw. na ngeen xamante. non nëpp ñi wax sax. Ah. waaw ku làmb ji taxaw na xam yaa may dégg ñun ñun ay nit lañ duñ ragal man man fu ma dëkk ragal dëkku fa waaw nit ñi nag dañoo yaakaar dañ dama ragal ay nëb man ku ma wax làmb ji loo ma yaax yaa ko mën mais xeex ba man nëb xanaa ah, du góor may góor. mais yow doo gis ku. ma man sama combat bi paase jëluma ko waaw mais ku daan sa yoon nekkul sama bët wér na si jàmm yow ku daan laa la wax. du maa daal waaw loolu amul ñu ñun ay góor lañ yaa may dégg mais man moom dama lay wax tey ku ma dóor damay fayu bu yeboo nga daan ma barke alxuraanu kër billaa wallaay wallaay xeex xeexam moom sax moo gënal bëre billaa wallaay sama laam ji pa avant moo ñëw laa toog interview wax leen ko ñu wax mal leen booy bi damay xeexam moom daan ko te dama xeexam moom daan ko nëpp su bëggee nañ xeex ba fajar déggoo li ma wax naka waa pa man parcelle na maa foppee nit billaa wallaa ñi ma fa xam ak ñi ma fay dégganteel ëpp ka moom ah, barki arxuraan ko ay nitam sax damay déggante ñoom yow da ngaa baax rek moom xam na Cheikh Baskara maa ngi koy nuyu yaa may dégg moom nëb ñooy ànd chaque jour dañuy déggante maanaam moom loolu waaw yow sa yoon nekku si yow lijjanti sa bopp yaa ngi sa yoon nekku si jaxase wu ma de na na pare rek yow affaire amul ay dina làmb ñun buñ si duggoon di ragal dóor kon man loolu laay bëre. lu ñuy xaar na tey saa bi nëb nee na dalaa bëgg a weer wan na say supporter doo dara wax rek nga mën. kan moo wax loolu. nëb moo ko. waaye sa waay lu nëb moom. da ngay gas ba mu suul nga da gas suul. lu nëb loolu laa sa waaw xaw ma si leneen. mais moom loo koy gën a xam ni billaa arbitre suuf la moo ko fa bàyyi man maa mun fuuf. si bi ngay bëri. waaw si journée zarko bi laay bëri lan waa waaw journée journée la rek. waaw man yaruma lool de. man bëri naa si ay journée yu mag. zarko moom ay journée ku ci nekk da ngay ndax lan kan moo may yar. zarko borom bopp mbaam bi ndax suñu dee bopp daa bëreeg man. bëreewul ak man gaa yi xam nga ne du bëree man damaa bëreewul moom sax nag man bëreewul man soxlawu ma ko. Zarko waaye Thierno baal nga jël Zarko. soxlawu Zarko. Zarko la laa koy doyee. Zarko bopp bi rek fu mu ma ko teg ma tëdd. <laughs> fu mu ma ko teg ma ndel bee rëy. waaw ba tey li nga waxoon yaa ngi ci opté da ngay bëre mais opté pour nekk roi des arènes ba tey amul benn changement. Fatma ko fa ma nekkoon ne. amul changement. changé wu ma nii laay mel ah. nii laay mës a mel. Ah. waaw man nu ma mel nii bu ma ko mës a changé ku ma loo. mais pourtant mën ngaa nekk roi des yow mën nga ko ne. non man wu da ngay bëri ñu nag jëm kaa ne. mais yow kon yow la ma tax bu ñu rek sa fit bi da lan la lu ku moom fitam ku moom fitam yow mais lan moo tax bu ñu la tuddee roi des arènes ah, yow kan moom fitam yow su ma neexee ragal yow sa yoon neexu si. ne. lan moo tax nga nekk nga ragal roi des du ma moom sama fit. aw ma fitam. ah fit roi des arènes aw ma ko. mais tournoi bi ñu lay waajal fan ma fay. nañ ma fay. yow. Jamteri Jacob Balde. Pam Ndoye. yaa ngi génn gaam nag. yaa ngi génn de. loolu mooy tournoi bi léegi yow yow dong yaa ca nekk instant bi ak Doudou Sané ci la bokk Doudou Sané caatu yoo yow ak jamteri al ma jaa nag ma sama jaamu nag ah <laughs> waay ñu ngi si lim yëpp mënoo lim rek yam bañ a lim Doudou Sané yow Doudou Sané caatu yoo bëreewuma jamteri <laughs> tournoi boobu loo ci yow tournoi ba doo dama ne la ndax yow mën nga si dugg man maa maa laaj ma ne dama la waaye bërewu ma. man damay bëreeg samay morom nag. ah tournoi ngay ñu ngi wax daal buñ ma fayee mu bëri xam naa ñu ma war a bëree. yow doo yow doo ah, sama ah, ah, naa fu ma war a man dofu de. yow ak Boussita. waaw ñooñu waaw. <laughs> yow ak Bou waaw naa Bou Siteu nangu naa na ma may. sans booy plateau tournoi bi. ko nag de. Ama Dia moo tax. Ah, si ñu ko yor si la bokk. waaw loolooy problème Ama Dia moo ñu teree bëre ñun ñaar doon nañ tëkkonte sax. waaw doon na tëkkonte. mais lan moo tax gars yëpp waa ni man bëgguma ko de man bëgg naa ko mais sawaruma si sax nag. non damaa xam Bou Siteu yow ñëpp sénégalais yi làmb coow lañ bëgg waaye ñëpp xam nañ ne maa ko mën. yow yaa mën Bou Siteu. maa ko fuuf. moom Tafa Gueye de ku si euh, euh, daal papa moo mën. asafu yow di def king boxing ndax dégg naa Eric Favre dafa woo Ama Dia pour wax ko euh, da dem pour def entraînement king boxing. waaw waaw dem. man man man du ragal de. ñeme nga kickboxing. looloo dàq sax bëre nag. doon tayaare xam nga yow tey jii bëre arène. da ngay ñëw di calculer bëre di calculer dóor lee amul calculer dóor ak kese la. yaa may dégg loolu moo dàq boo ñëwee da ngay da ngay xam fi nga jëm. mais bëre da ngay ñëw doo xam fooy taxaw. waaw léegi kickboxing da ngay xam lii xeex kese la. da ngay ñëw pour xeex. waaw ci ki nga xamante ni fans yi la. fans yi lay woo de. yow li sa bopp rek yow. fans de. sa Ama Baldé ak Gris Bordeaux noo gisee Ama Baldé Gris Bordeaux. waaw làmb la waaw man man man Gris Bordeaux la. yàlla Ama laa faral moom du ma ko Ama sama waay la. waaw yàlla na ko yàlla suturaal may ko ndam man loolu laa non Guiré moom moom laa la moom laa doon supporté waaye Ama daa am yërmande bu ma si moom kese moom sama waay la te man dama ko bëggal sama bopp waaw dama koy ñaaral rek Guiré na jël temps rek ñëw ñu daan ko rek mu dem garaawul. combat bi mën na cee réussir Ama day daan sax Ama bu daanul man moom la <laughs> bu daanul man moom la ah. waaw su ko Guiré daanee ma dama koy jël de. waaw waaw moom mën moo war a daan mooy xale. waaw ah, bu daanul moom dama koy jël moom. léegi Ada Fass ak Gouye ndax ñëpp xam nañ nag bu du mbalag beeg lépp Ama Dia dafa mën a bëri macha allah. Ama yow. yow kan moo la wax dama am bëri yow dama seetaan waaw léegi seetaan nga ma sa yoon nekku sama bëri yow li jënti sa sa télé bii waaw yow sa yoon nekku ci man. Ah, ah, combat Ada Fass ak Gouye Gui waaw lamb la sama waay la nag moom. waaw ñoom ñaar ñëpp moom mooy loolu. waaw yàlla baax na daal. ñoom ñaar ñëpp say xarit bu ma wax loo nag man lool du ma si wax nag ñoom ñoom lii la làmb la rek ku daan baax na. mais mënoo xaritoog ñëpp bàyyi sa yi ngay def da ngay bëree ak ñoom yow ku ñu wax sama xarit la. ku ngande sama xarit nga kuy dóore sama xarit nga wax ji jeex ah. ngande. ku ah. sama xarit nga ah. kuy dóore sama xarit nga. léegi a ma fa yeggee ah. ma war a ñoom. yàlla mën na def ñu bëre waaye yeggaguma fa. mais waaw dina neex man làmb ju ñëwagul nan laal si eh, eh, analyse. yow def nga la kañ la làmb ji la 30 na si yàlla def jàmm rek. Fama de nag waxal leneen. dama la mënoo analyser nekk ci ci làmb te mënoo analyser. yow man sam bopp laa tal. yow man taluma nit ñi. yàlla sa bopp sam bopp laay lijjanti maa ngi si làmb mais lijjantiwuma nit. yow yaa ma ko yow da ngay xeesal te man xeesalu ma waaw di waa waa man man lu ma leen def booy jigéen yi laa wax ah. waaw man lan laa leen def ku waaw daa am ñoo xam dañ may piéger xam nga di ma woo di ma wax yu bon te man man ah. man ne booy man man yéenewuma nit lu bon defuma nit lu bon waxuma fi lu débordé su ma ko waxee na ma Sénégalais yëpp jégal ah. mais man a dafa am ay nit ñoo xam ni gis nga àdduna nit du soxoree nit. mais man ba si démb la ma fan yii yëpp dafa am ay nit ñoo xam ne dañ ma woo di ma jox ay jigéen ñu may jéem a peese pour ma wax lu bon man bonu ma te man ku yaakaar ma taxaw si internet di def lu bon wala ma koy wax wala may wax ak jigéen su ñaaw loolu jigéen jaralu ma ko. ah xale jigéen ñoom ñoo la woo di la piéger pour di la piéger affaire kom jigéen. comme comme piège la pour nga ñëw fa seet ko waaw man damane la man du ma seeti kenn man ku ma soxla ngay ñëw sama kër te soo ñëwee sama jabarang fa man dama man ñaakuma fu la man jigéen jigéen ñooy suñu yaay. kon tentation yi dafa bëri si waaw dafa bëri te man damay man damay toog sax ne lii jaru ko quoi siiw dafa metti te man man yéenewuma nit lu bon ba nit di may yéene lu bon. ñoom waaw man fu ne lañ may woo mais man man bañ na ko man sama day métti mënu ma dem. mais am na xaalis pour nga ñëw jigéen ay jigéen. ma la wax am na yoo xam kenn du ko wax man du ma yàq deru nit mais am na si ñoo xam xam naa leen xam nañ ma su ma waxee dinañ dégg ñoom. d'accord léegi waaw dama ne la pour ñoom pour ñun noppalu pour ñu noppalu laa la wax TikTok bi dinañ yéex a dégg si man lu ma yàqal. man gis nga man damaa am respect si nit man du ma yéene ñëpp laa yéene jaam mais ay nit dañ lay woo bëgg la yaaxa te àdduna amul solo gis nga soo fi nekkee da ngay yéene ñëpp jaam soo bëggee am jaam man ay jigéen yoo xam ne dañ lay woo di la wax yoo xam ne waaw bañuñ bañu ma dama laa no parce que nit ku ne mënoo ñàkk nit ñi di la bëgg man bañu ma ku ma bëgg mais na rafet ah, mais li ngay wax day dépassé wu ay ñoo am na am na yoo xam ne yow mënoo ko wax fii mais ay bëgg la enregistrer di la dugal wala ngay vocal ñu lay bëgg di dugal man instant yi nii am na si ñoo xam ne jigéen yoo buñ ma vocalé sax du ma am fitu tontu parce que damay ragal boo ma wooyee sax dinaa taxaw une minute ba xam ba xam doo ko doo ko wax loolu dafa metti te man bugguma ñu may woo du ma jël te fi mu toll nii soo suñ la wooyee jëloo ñu ni da ngaa yegg si te man instant sama téléphone dama si daj lu métti démb dama am mer ba dama ne damay dindi sam piis. comme waxtaan ak ñeente ñoom seetaan ak sa fans yi comme lu metti comme dund nii man xawma ko man man lii quoi. maanaam pièces yi niñ may bëgg a piéger pour yàqal ma maam yooyu amul njëriñ daal. dina man kon yu maanaam di ma di ma. envoyé ay vidéo yoo xam ne ñu def ay tout nu ay taatu leen ak yooyu. faat ma jëlaat. ah non dañ du ma si yegg sax waaye garaaw la yow jàllal rek man jigéen mooy sama yaay. yaa ngi dégg ñoom ñooy suñu jabar. te jigéen da ngay da ngay respecté sa bopp xam sa bopp xam yow yaay kan. billaay boo ko defee rek ñëpp dañ lay respecté. waaw sa yaay tey jii su la fekkee si yenn yi du ko neex mais mais boo nekkee mag sa yaay doot waaw waaw mën na ma indil problème mën na ma yàqal lépp lu ma am waaw te mën na maa tojal yaa may dégg mais man sama jabar xam na ma sama yaa xam na ma yaa may dégg man du ma dugg lu sama yoon nekkul te lu wóorul du ma ko def man soo ma gisee suñ koñ sax du fa toog man fii laa yendu fii fii laa ñii ñii nii chaque jour ñooñu may gis man awma fu ma dem fii guddi laa fi jóge kon man leneen lan laay def man ku ma bëgg a seet man awma problème boobu da ngay ñëw nga seet si ma man. waaw ñu respecté te ba que man bugguma sax di wax ay baat yu bon si jigéen jigéen ñooy suñu yaay te ñun dañ leen a bëgg te ne ku ma bëgg bëgg naa la. waaw ku ma woo di ma jot mais tamit su ma demee ba jëlatuma rek am na lu tax barke alxuraan damaa damaa xaw a tiit dama xaw a tiit. am na ñoo xam dañ lay woo di la këyitloo xam nga te yooyu àdduna jaru ko jaru ko quoi ñun man damaa nekk si làmb nii rek di doog a fël kese man man dara. te ba nga nekk ci làmb na. xëy na yàlla moom duñ duñ ma gaa dégg. waaw yàlla na leen yàlla defal jàmm képp képp ku ma def si lu ñaaw yàlla na la yàlla defal jàmm te jéggal la lépp. si àdduna. sa supporter yi xam te ne instant bi sa supporter yi ñëw na loo leen di wax ci combat bi kàddu. yan supporter la. yu bees yi lan nga leen di wax. supporter yow mel ni yow yaa ko tey bëggoo jënd bee bëggoo regroupement ba sey ngay def bëgg nga xaalis trop loolu sax yow kenn ku ne ñaan yàlla am ay supporter yow yow bon nga si sa bopp. Fatma Dia yoruma ah yoruma xaalis bëggoo ku lay supporter. bëgguma. ngay supporté. yow loolu du sa problème. man bañu ma ku ma supporté. kii daa bañ a jënd bee def na groupement. waaw ma yow da ngaa soxor. yow da ngaa soxor. da ngaa sa télé bi ne woon dootuma si wax. parce que yow nitu intérêt nga. barki yàlla nitu intérêt nga. booy lijjanti sa bopp nga laaj ma li may laaj jug dem. sa nga dooru groupement doo jënd bi ndax da ngaa Ah, mu ngi fi mu ngi fi. sa tànk bi damaa des Bib Diop di ko nuyu waale sama xarit la waaw sama waay la yàlla na ko yàlla moo Diop de ñoom ñoo ñoo dama àndoon ak ñoom ñoo may boole ay seeni nit ñu may jàppale waaw dama àndoon moom nag di dem xam ñu dem dem nañ sax ba tourné waaw di dem combat booy pir bi xam larek ndogal la rek man moto bi bu may mbëkk sax dama ne yàqu naa sama àdduna waaw pour man damaa damm mais yàlla def na si ndox seet damaa tane am na ay yére mais sañse wu ma solu ma ko solu ma ko man talu may yére nag man sam bopp la ñaw naa leen ba pare ñaw naa ñetti ñaw waaw ñaw naa ñetti ñaw fan yii <laughs> damay préparer fan yii rek ma jéem leen a sol mooy loolu waaw mais tabaski moom man man ba suba gi laa xëy parce que gëjoon naa xëy sëruma de yéen sit yi laa topp ba tabaski wu ma am ay liggéey yoo xam dama ko fi bàyyi yaa may dégg looloo tax tabaski bi man noppalu ma depuis boo bëlee maa liggéey. DG maa ngi koy sant bu Siteu ah DG sama waay la billahi yàlla koy ah booy yow soo yoon nekku si man troisième waaw lycée troisième lycée <laughs> troisième lycée. yoo xam nga nga am certificat yow da kii yow euh, euh, nu mu certificat. certificat la. luy loolu dafa entré en sixième naan troisième. waaw defuma loolu. lu troisième def nga def nga kii CFA. luy CFA. entré en sixième. yooyu fa man nilaar. troisième moo tax ma bax. yow troisième lycée nga booy troisième daal laa bàyyi xaw ma nag. la xaw ma. ban leçon nga gënoon a jàpp ci sa leçon yi ñu la doon bindal. la. note ko. Sidi loolu. saa <laughs> waay yow xanaa da ngay saaga. yow kon dara. moo saaga damay fayu de. yow kon nga fa lii rek nga fa nekkoon ba bi. waaw lépp man dama doon buujoog lépp. waaw dama doon liir. moom. waaw mais dama doon buuj. la a. la la. la e. e. la i. rek. <laughs> waaw maa ngi sant yëpp di gërëm waa Comico waa Mbédé Fass waaw waa Bambey waa Touba di leen wax ma dinaa ah? bi xar bi moo yaatal sama gémmañ gi ni nga koy def nii nag nekkuloon nii nga daan def waa nii non lii tey ma ko sax yaa ko seetlu de yow gis nga sa gémmañ gi ni nga koy def yow loolu jëndi maa gërëm waa Kaate Baas waa Firi Life waa deuxième étage waaw waa deuxième étage ñëpp daal maa leen sant su ma limee damay jub DG maa ngi koy sant bu Siteu sama waa lim joxe du ma la wax di sant kanji bu baax buuse naa ma xaar nag dinaa ñëw non dama guma fa waaw mais dinaa fa dem non na jël taam bu set boobu non du ma ànd waa kii bébé diwaan waaw moom fa war maa ngi koy xaar après su ma sa yoon ne ko dama laa war xam nga yow ngaaxa nga wadd dañ koy def noonu. waaw yow loolu jëndi sa bopp yow man maa la wax nga wutal ma ay nit. yow man soxla wu ma nga wutal man am naa ay nit. da nga ñëw kër ga ne ma defal ma mburoog petit pois dégg nga de chaque jour suñ kër ngay nekkee. yow sa lool saa daa neexul. mburoog petit pois ba ma ko lekkee ba léegi wéeru ma. ma sonal barki yàlla wéeru loolu dafa fanaan bul jaarati kër ga dégg nga naan ma jox ma lii jox ma laa aja dinaa wax waa kër ga doo fa ajate doo fa yow café jox ak mburoog ndambe boo am dafa fanaan fanaan mu ko jox ma ko may lekk nga may naam sax di waa Aba préparé waaw samay añ yaa koy joxe. Ah, ah, non da daal ba mu jox ma ba pare. Ah, <laughs> non neen du ma ko jox sax. naa ko jox numéro jigéen mu envoyé ko ko nee na moom ah non non quest daal mais non gars eh, bu kenn tàcc suñ ma joxee ba kenn tàcc buñ ma joxe bu gaa yi ñëwee nañ indi taw taw ñu dajale ko. waaw mun naa togg añ jënd si ay. Ah, ticket tàccu leen loolu dina togg añ ko. mais ah. eh bul tàcc mais ceebu Keita lay doole. waaw mais dinga togg dinaa ah, togg ceebu ñebe. ñii <laughs> ñan la. bu fekkee ne yow añ ba ñibbi loolu ñoom la bu ñu añee ñibbi. bu ëllëgee ma xoolaat nu may def rek man maa moom sam bopp de. waaw di ñaanal di ñaanal ñëpp jaam di la ñaanal jaam yow. waaw di la wax tey danga may laaj paas wala. yow yaa may jox tey du ma bee paa dama la jox yow jox waa sit bi maa leen di gërëm di leen wax jox naa ko vingt mille keroog moom yii. yaa may sa yoon nekku si yow joxuma la vingt mille. kañ nga ma mujjee jë. tey moom yaa may jox waaw yàlla na la yàlla defal jàmm waaw gërëm ñëpp. waaw waa kum foo yëpp aw ma seen fay waa Touba waaw di leen wax dinaa fa ñëw waa Tiwaawan sama jabar sant naa ko ba mu sonn waaw dafa latte si télé yi du ma ko sant na ma ko jéggal waaw di gërëm soxna soxna Ndiaye soxna Dieng waaw booy ñaar tikeem yaa ngi ni day bëre sama waay la sama léb la yàlla na ko yàlla may ndam waaw tikeem moo nekk nii. kontaanee naa waaw maa ngi lay kontaane jaajëf.